Eh, par la suite dama nan lan moy sa chop sa plat préféré. suma plat nak jeun ah, la. jën jën. ya ngi fàttale ko no jeun sa xama ñu dam geej mm-hmm. andi laka mm-hmm. to gaay pa sa jeun dafa natural dafa ba vitamine man bu may bu ma don bëri ji sama gaay yi loolu lañ ma dañ na man damal ngay seeti ay jën ñu andi fi ñu xama laka xama parce que loolu dalay may dool affaire bi nga simé ko xama gaay nañu liggéey nga affaire yoy ta lek jën rek nga don def pour moi mu jën mom lebu mom tay jii sax la la kay gëna wax jën mom dafa am 100 bu nee ci biir bokay lek da nga am doole te sa yaram day wër te da ngay sa sa day normal quoi. par la suite dama nan rakki ji. Euh, Euh, euh, euh, série sénégalaise yi ban série mooy sa série préférée. nii nii actuellement. yee même boo xoolee même wiri wiri boo daan naa ko seetaan ba damay damay calculer sax sama entraînement pour ñëw seetaan ko. waaw actuellement fi mu toll woon si dëkk bi tamit. waaw daal mooy sa série préférée. waaw émission boobu kan moo nekkoon sa acteur wala man kële laa doon faral nu mu tudd nan lañ koy waxatee sax. copain bi rasa bi. seexu naa mooy band bi man moom moom moo ma gën a neex quoi moom laa doon ëppal sax waaw. moo gën a tax may seetaan léegi. Euh, rakk ji yaa ngi Bargny ah question bu ma lay posé Bargny bokku ci euh, fan moo la gën a neex ci euh, ci Sénégal ban gox ban koñ ban quartier ban dëkk fan moo la gën a neex Sénégal. mais Bargny laay wax. à part ah loolu dina xanaa ma ne comme Wakaam. Wakaam amuma fa dara. neex na neex na ma trop parce que boo fa demee dangay gis ne dëkk bii dëkku lébu la quoi te xam tamit calmé na xam nga te dëkk bu neex la daal. Euh, par la suite dama naan euh, rakk ji euh, question bi ma lay posé Sénégal bokku ci ah ban réew moo la gën a neex ci àdduna bi pays boo xam ne ngay rêvé un jour teg fa sa tànk. pour l'instant moom waaw boo xoolee tey loolu la quoi tey réew yii nii pour lu tax ngay bëgg a jékki saa di fa dem parce que xoolal entraîné bi ngay entraîné fi matin au soir da mhm. ngay dem suba gi géej ngoon ngi nga dem contact wala buñ contact boo contactulee nga dem saal mhm. tey ngay gis sa yaa ngi développé tey nga gis koo xamante ne ci làmb lañ nekk day tukki trois mois à 4 mois ñëw xama mhm. am développement carrément mais xama lan moo tax fii ngay yéex a mooy da ngay entraîné ji ñëw toog sa gars yi di waxtaan affaire mais bu lay wiidaa bi wala récupération bi loolu rek moo tax ñu doon rêvé quoi mais. non rêvé nañu pays bi fi ëpp doole États-Unis buñ. waaw tey buñ <laughs> sañoon buñ sañoon non États-Unis moom rêvé nañu pour dugg fa baax te waaw rêvé nañ ko bu baax bu soobee suñu borom bu ñu. Euh, rakk ji nga liggéey tekki dal ci am alal ju bari lan nga ci njëkk non man moom ins bi boo gisee sax may rayante si lu bëree bëree bëri mooy nit tey da ngay juddoo sa famille. mooy tey actuellement liy xew nii si dëkk bi muy affaire de booy ni ñu jëlee gars yi di dem affaire yooyu noonu. surtout xam nga loolu lépp lan moo ko waral tey da ngay doon booy nga gis sa gaale nii xam nga màgg comme ni ko si da waxee am doole xam nga yëpp mais da ngay bëgg tey say waajur tey comme ni ñu koy waxee. yóbbu leen maaka jëndal leen oto yu normal dugal leen ci kër yu normal loolu ngay bëgg loolu ngay rêvé quoi. même ak ah, foko meuna amé day gaaw si lamb liñ ci gënoon a séentoo pour am ko mais actuellement lamb ni mu dee nii mo taxone xama ñep xawa jaxaso quoi ba boo gisé sax amna bo yo xamanteni xamante yaakaaroon nañ ci lamb wala doon ay espoir bayé nañ fi dam bo xolé tay lamb bu amone ni muy mbapat di nga gis élément yu bëré doo leen gis parce que booy yu bëré jël nañ gaal ta da ngay xamné na boy bi champion la ki ni bu continué woon si làmb ni mais nit ñi dañu mënatul tok di gis seen wakkat ñuy souffrir wala xam yéwo ci si kër ñuy suivre waaw loolu day xaw a metti quoi loolu nag ngay bëgg a fighting te fat pour lijjanti ko loolu la ñu ñaan yàlla ñun moom man moom tekki teral suñuy wéyjur bu baax heureusement nga xama loolu moo nekk sa xolu ndaw ñëpp presque presque de booy yëpp mën naa ne loolu nekk seen ci seen xol mais rakk ji dama naan nga xëy un ñu ne la caatu ban yi am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jëlee ko fi lan nga fiy jëlee tey jii nii bu ma ëpp lu ma doon tere pour ñu jëlee ko fi mooy mooy ni ma la wax rek am na ndaw yoo xam ne tey ñu ngi def loo xam ne neexul da lii boo demee tey fu mel ne ay prévision xam tey am na ñoo xam ne nag suñu borom moo ne woon jaar jaaral dañ fay jaar du ñu bon ñoo fa nekk bonuñu am na ñoo xam ne dañ leen dugal leen am na ñoo xam tamit def nañu pour dugal leen fa mais man daal su ma amoon loo xam ne dama koy def ñu moytu loo xamante ne tey dañuy sànk ba dugal ñu foofu xam nga ñun ay ndaw lañu lépp ñu ngi ñaan suñu boroom gën ñu teg loxo ba ba ñu xiir si dara loo xamante lu ma fi lu ma fiy jële bëgguma fi ñaawteef yëpp loo xamante ne ñaawteef la rek bëggu ñaawteef waaw mu jële ko fi d'accord maa laaj nga tontu euh, rek ji euh, yaa ngi Bargny ah? euh, question bu ma lay posé nag yow boo koo ci mais Bargny fii gis nga fi ay jeunes yoo xam ne war nañ mën a téye làmb ji un jour ay mbër yoo xam ne un jour war nañ mën a dem fay ko ay 100 millions way loolu soo ko waxee sax dama naan bennaa ngi si bii toog premièrement way saa ngi fi ah, caabi géej mu ngi fi arab yi ngay wax ne ñu ngi fi. arab yi ñooñu bu fekkee daray làmb xanaa làmb du làmb xam nga tey làmb dafa doy waar. mais yàlla xam na ne mooy suñu mag sax Forza xam nga. Forza Abbas. yëpp mën nañu téye sa làmb bi. gis nga ni war nañu mën a billaahi wallaahi tallaahi. soo jubul maa laaj nga tontu rek ji bi nga juddoo ba tey ji may xëy yow ban jour moo la gën a neex ci àdduna ak jour boobu lan nga dund. jour bi ma gën a neex ci àdduna. ay xam nga moom moom tamit benn moom neex na ma quoi mooy tey xam nga doon naa booy boobu dama doon dëngéej làmba bi dese woon na bëri ca combat yi mbapat yu lii ni boo xale laa di taxale tamit ba am loo xam ne dina naa xaar ñëw di dina la sam baaba naka maa ngi xar mais actuellement ins boobu gëm ko woon ko parce que <laughs> dañ naan booy yi voilà mais ah, xam nga mbër boo ko doonee rek dañ naan kii mooy lool mm. mu ñëw na ah comme que lii la kat ah, jambar nga affaire yoy dikkal ma ñaanal ñaanal luma lay waaw firi mu neex lool bo tu tang la sama aduna d'accord mais bi nga juddo ba tay ji ma xak yow ban jour mo la gëna metti ci aduna ak jour bobu lan nga dund way jour yoy jour bi la gën metti ci àdduna lan ne sama defetu lamb moy bi mujj nii dafa la métti dëggantaan dëggantaan ba nga xam ne métti na la. dafa ma métti ba toogoon naa fi benn jour boo xam ne une journée lëmm lëmm lëmm yeewu naa suba. ba lekkuma dara. mënoo dara bu ma ndekki mënuma ko def añ reer yëpp ba noonu laa bëgg a tëdduwaale mënuma ne la waale moom. billaahi wallaahi. parce que dafa am lu tax quoi parce que xam nga. waaw waxatuma defet boo xam ne sa dëgg la quoi. ñëpp

dex nga ko ay yoonu yoon ba bàyyi ka mu def ko tey kii dax a bëri si làmba ji defe naa bëri moom daan ka muy Balla Gaye moo dax a bëri tey bu fekkonte ne mais mais tey jii bu fekkoon ne damay bëri moom dama naan sax Balla Gaye est-ce que mun laa àgg sumi boo du génn làmb mais yow rev da ngay rêvé. rêvé yëpp ñoom booy xuli ñoom. mais daal da ngay rêvé bëri Balla Gaye un jour. waaye rêvé naa ko yoonu yoon gént naa ko ay yoonu yoon. bëgg euh, euh, Thiatou Bargny da ngay rêvé un jour. reporter bi ne attention attention Balla Gaye 2 à gauche Thiatou Bargny à droite. arbitre bi sifflé na génn seen diggante roofoo nañu Balla Gaye 2 Thiatou Bargny da ngay rêvé loolu. ñu ngi xeex ñu ngi bëree doorante nañu. ñu ngi bëree Balla Gaye plaqué na ko Thiatou Bargny mboot na ko. bu baax laa ma dafa ne. ni ngay reporter nii rek suñu yaram mu ngi am lu muy yëg quoi ndànga ndànga parce que làmba làmba billaay non làmba si xol ko ak gëm-gëm. que xam nga li la yóbbu ci niveau bi Balla Gaye toll. waaw xaj na ñu ngi koy def ñu ngi entraîné mën nañu bëri mais ñu ngi gën a sàkku xam-xam tamit si bëri ñu ngi tamit ñaan lu xama yëpp mais di ñaan tamit ñeneen ñëw teg ñu loxo xama ba tey li ñu bëgg si làmba mu yomb quoi. mais du bëre bi du lepp bëre ba ngi fi entraînement bi lépp a ngi fi yalla xamna billahi suma simme ko won nga fekk ma fi ni ñuy contact mhm. wala nga ko ñu fekk ma fi ci mbapat ñuy bëre mhm. di nga ne kon ki moy caatu ban loolu deug la wo gaay ñu ñew japp ci c'est comme j'ai ci del le dire sax euh, série du yem ci ben épisode c'est la première fois moy déplacé wu ñew seet ci la séq ak yow waxtaan xamna du yam ci tey mhm. euh, euh lima andi won ci question jeexna lan ngay tagato aussi nga woote gaay ni nen ñu japp ci non man nag maay sant sama gaay di santa bër ñi gépp gépp gépp parce que man dafa am loo xamante ne sax dañ naan koo xamul noo koy def nu mun a def moo tax bër ñi moom damay am combat sama gaay yi dañuy génne gaay yëpp dañuy génne ñëpp ñaanal booy bi dafa baax yi yëpp gaay yi dañ lay topp ba say entraînement dangay dem entraînement yóbbaale nit xamante dem contact yóbbaale nit nga ñëw gaay yi tamit xama dugg si dëkk bi fii nii si sama gars yi ñoom Jibi Ndiaye xam ñoom Baye Wade ñoom Cee ñoom Yile xam ñoom Moussa Ndoye ñoom Aziz ak suma grand seenu mbay ñoom Assane ñëpp dañuy jàpp si affaire bi sama staff ñoom rax gars yëpp ñoom Ndiaw xam ñoom Zi xam everybody gars yëpp ñu ñëw xam ku nekk dew andi sa li nga am xam ñu dajale teg ci table ji ñu xool nañ la ñu koy ñu génn règlement bi génn xam kaar yi génn tiset yeex yooyu yëpp mais. ñu ngi leen di ñaan ñooñu dañ leen di ñaanal bu baax a baax ñu gën a taxaw pour jàppale caat parce que caat champion la quoi xëy na suñu borom moo ñëw xama na carrière bi nii la loon demee quoi carrière bu boy mais dara ak làmb ñoo ànd quoi te bu léegi ñoom xam nañu maa ngi si parce que booba léegi dama bëri woon ñàkk te maa dem di bëri di andi samay nag di dem di bëri di andi li ma gën yëpp kon je sais xam nañ ne kon kii talent mu ngi si moom quoi noonu la demee nag kon daal sama gars yi gis ngeen ni la fay demee saa su ne ah ñoo ngi woon fii ci Bargny ñëwoon seet si caatu Bargny c'est comme j'ai l'habitude de le dire ax lu làmb xàmmee leen ko ràññee leen ko mbër maa ngi kii mooy caatu Bargny xàmmee leen ko ràññee leen ko mu ngi ci yoonam bëggatuma mu summeeku taxaw ci géew ñu ne kii kàlla mais bu sumeekoo taxaw ci géew nañ ne caatu Bargny ngi nële di leen jox dig daje ba beneen yoon rek ziar ziarat jàngeen jëf sama gars yi